léegi ma ne laa match nangam nangam lay doon ci score deux bi à zéro lay nekk ah mën naa la wax sax deuxième mi lay nekk wala première mi-temps dinañ dugal nangam équipe sangam dinañ dugal sangam yaa ngi dégg waaw mais score bi total total 2-0 wala 2-2 lay doon wala 1-1 lay doon wala 0 bi partout lay nekk. da nga dégg mais mën naa la defal daal chaque mat ma ne la nangamu junni nga may fay da nga dégg mais nangamu junni yooyu danga may jox avance. salaamaaleykum salaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp maa ngi leen di ziar bu baax a baax a baax vraiment kontaan naa kontaan naa trop ci lii lii ngeen may maanaam nit ñi di seetaan série yi ñooy mën a dugg di participer di wax seen xalaat kontaan nañ ci trop trop ah man moom démb sama xol dafa tooy vraiment ba xale bi ne dama bëgg dama bëgg naan mu ne ko doo fi naanee boobu loolu moom kuy yaay rek vraiment saxol xol tooy na foofu moom vraiment ak papu rek bi ah, papu Jalika ak ah, yaayu rek li ñuy nëbb moom vraiment yàkkamti nañ trop mu feeñ. yàkkamti nañ trop mu feeñ vraiment film bi daal neex na trop trop trop neex na trop trop chaque jour nga siy gis yu bees kontaan nañ trop kontaan nañ. waa asalaamaaleykum sama mbokk yi mbaa yéen a ngi si jàmm maa ngi leen di ñëpp ku ak sant di leen laaj seen jàmm ak seen jàmm yi yaam joor de defat na njombe man de joor na moom yaakaar naa ne man rôle bi mu joué moom yaakaar naa ne ni daal jigéen dina ko def ah baa ma xam ne kon de boo wër. su Sénégal gii moom doo ko fi bari ni ko fi ndax ku jigéen du ne moom man jàpp naa ne doom ju ne danga koy jàppe ni sa doom ndax xale baa ngi ñëw bëgg a naan mu lànk mu ngi koo may mu naan ba xale bi nara faat mu naan papa ji dan koo delloo ba tey ma defe ni man joor damaa pour man sama xalaat damaa defe ni dafa bëgg a jouer rôle boobu pour bi delluwaat ci loxoy jalika man daal ba tey ma defe naa ni joor du loolu du ngonam daal damaa defe ni rôle boobu la bëgg a jouer pour mu delluwaat ci loxoy jalika laa yaakaar man damaa defe daa bëgg xale bi demaat man ma tax man pour ma daal joor li muy joué daal defe naa loo xam jikkoom la ndax ni mu xaritoo woon ak Jalika waaye doy na waar moom ni muy def moom wax yàlla mu bëriwul daal bëriwul daal moom xam naan ci jamono ji moom waa ñoo ngi leen sant di gërëm wax dëgg yàlla kontaan nañ trop macha allah heure bu ngeen xëyee yéen a ngi yeete daal yàlla na leen yàlla suñu borom fay daal mais jigéen ju bon daal góob ni moo amee noonu Sénégal gi ñu nekk wax dëgg yàlla moom ndax doom moom doomi ñëpp la ndax loolu naan doom géej la kenn xamul ku wéri moo tax loo ciy def rek na nga ko xam waaye wax dëgg la waaye man daal jiwal loolu laa jàpp man damaa defe daal daa bëgg xale bi demaat ci yaayam jàppale ko daal dafa naan man moom la bëgg moo tax muy def loolu man li ma yaakaar mais bu fekkente loolu dafa nekk loo xam da koo def nag moom ak mbon a mu def ko moom dina ko réccu moom il na feeñ ci moom ndax xale moom loo ko def moom di ci feeñ jërë ngeen jëf yàlla na leen yàlla suñu borom fay kontaan nañ lool. salaamaaleykum naka ngeen def waaw man maay woote fii. waaw si série maîtresse bi ah wax dëgg yàlla seen série bi neex na li muy joué neex na rôle rek boo seetaan soo seetaanee Maria moom Maria moom daaf maa maa neex Maria moom sama doom la moom ak moom ak wujjëm bi yëpp daf moom ak Lalla ñoom ñëpp dañ maa neex Lalla moom macha allah ku teey la ni muy doxale ni moom depuis première dafa teey xam na seex mu ngi doxaan ah. mu ngi teey di deful dara ba mu jàpp ko si soo xam ne kii la ba seex jébbalu ne waaw man kay léegi damay takk Mariam yépp amul benn problème dafa neex ba dee soo demee encore si Jalika encore tamit foofu tamit birom moom buroom moom moom dafa doy waar birom moom dafa bëri jabar dafa bëgg euh, jabar ne weex noo kat dafa bëri dafa bëgg jigéen sama wolof mi nag setul <laughs> waaw léegi nag encore li mu def erreur li mu def rek li mu takkee jabaru li mu li mu takkee ah, xaritu jabaram loolu wax dëgg yàlla loolu mu ngi def wante nit ñi dañ see dañ see war a moytu nit su demee ba nga xaritoo ak moom waruloo dem di sëyal jëkkëram ah ja jëkkër yi dañoo góor yi dañoo bëri te soo defee loolu te doo rafet si kaw nit ñi encore yow tamit mën nga si am problème beneen yoon ndaxte sëy yooyu yëpp du yàgg waaw toujours nit ñi dañ lay coow di la wax la toogee di la wax n'importe quoi macha allah série bi nag waaw foo seetaan rek daal rôle boo seetaan rek nga foog ne boo daq borom bi encore Racky euh, Racky moom ak yaayam moom damay reetaan rek yaay ji moom seeta rek moom xaalis rek la bëgg yaayu Racky moom xaalis rek la bëgg moom moom tamit rôle am dafa dafa maa neex moom ak jëkkëram ji encore ki ma bëgg a sëyal macha allah. foofu tamit dañoo ànd ñoom ñëpp ay xale la ñu te dafa rafet seen diggante dafa rafet waaye léegi daal continuer leen rek ñu seetaan encore lu des li nu mel wante nag baax na wax dëgg yàlla euh, ñu ngi kontaan daal ñu ngi kontaan nuyu naa leen ñoom yéen ñëpp. Hmm. asalaamualeykum ah, waa Marodi TV yéen mi doxal affaire yi ah, séeréer ma ne ko nekk na théâtre bu neex a neex moom macha allah te am na yu moo doom aadama pim nekk nii lu baree baree bare mu ngi doom aadama si commencement ñu ngi wone naka la xarit dee mel moo tax ñu ne xarit amut àndandoo moo am parce que soo ko seetee si yaayi Amina ak joor mi nga xam ne woon nañ commencé woon ba léegi ni joor def nii dafa ñaaw waaye nag ñu toog ñu seetaan ba sa kanam naka la ñoo mujjee waaye léegi nag dafa des si góor gi mu won ko ne ko moom amalagu ko fa doom doom jim njëkk a gis daf ko war a toppatoo won ko ne ko man kii laa njëkk a gis gisaguma sa bos góor gi tam moo war a am fulla ak paydaam muy eh, jëkkari woon muy papi Amina waaw Mariam nag moom seet yee mel noonu ñoom dañoo dugga xët xët xët dugga waaye buñ demee ba sakanam gis ne lañ sa yaakaaroon amut ñu dellu gannaaw ñoom moom loolu mooy seen ah, yëf man suma doon aawoom bi daal duma si merati duma si def dara mu won ko ne ko daal daf ko fekk mu toog dëju ni kuuri kungaam randuwut dawut ak lam doon ah, jëkkuwante si biir sëyam moom ak yàlla rek a ko xam naqaram neexaayam yëpp kenn xamut waaye xam nga soo gisee ñenn ñi jigéen ñi dañoo gis ay góor si biti muy dox xamuñ lam làmboo ñu foog ne mu ngi am àddina ak li si biiram wala nekk na góor goo xam ne macha allah waaye demal fekk ko fa kon di nga mën a xam ndax waa góor gu iw la wala góor gu iw si oh, moo tax nag Mariam ak jëkkër ji seetaana dàq si ndaje be pare meer bale tamit moom ak jaari jaari yi tamit moom it mu ngi lijjanti yëfi baayam baay nag moom lu mun a doon baay la waaye moom itam ñu seetaan fa mu mujjee ak yaayam waaye dama yaakaar ne woon doom doom dafa neex neex boo xam ne moom yay pim jaar ba jur doom dina tax na woon ne yaakaar naa woon meer bi nam doon doxale ak jaari lay xam ne juru ko wala nga xam ne su ko juróo yi tamit am na lana tax muy ko deflu bon loolu noonu waaye bu yàggee dina leer waaye ñetteel bi suma wax ju mujj daal mooy wax leen seen gaay yi ne ñuy wàññi seen français yi seen làkk français yi dafa ëpp torop ñu bari dégguñ français soo ko seetee ti mel ni dëkki Gàmbi Gàmbi yéen ñun dañ soxla seen théâtre bu baax a baax waaye nag seen français yi daal moo ñu si dee gën a jaaxal ngeen wàññi seen français yi di làkk olof bi nit ñi dégga baax na ngeen nuyul ma yépp ñëpp man nag maa ngi États-Unis waaye waaye Gambie laa baax na salaamaaleykum salaamaaleykum sama waa groupe salaamaaleykum waa Lu Xew TV maa ngi nuyu ñëpp góor ak jigéen mag ndaw di nuyu taaw ba caat nuyu naa ñëpp ñi nga xam ne ñoo ngi teewlu di déglu di ñaan yàlla yàlla may ñu jàmm di ñaan yàlla nëgëni déwén bu ñuy taxaw fekk site bi nekk nag télé bu ñëpp di seetaan ñëpp bàyyi ko xel ndax macha allah lii am na njariñ torop xalaat yëpp fi lay dajaloo yàlla na xalaat yëpp di déggoo ah bu loolu paasee ma ñëw ci seen série maîtresse 41 ma ñëw ci waa di wax ne mère Diagne moom mère Diagne nag nag nag nag nag moom moom lu mu bëggal mareem ay waaye lu mu bëggal mareem na bàyyi doomu jàmbur bi mu sëy kii sëye ko yëkkati ah sëy moo ko yëkkati bëgg na ko ko jàppale na ko bàyyi mu sëy sëyam bëgg na jëkkëram jëkkëram bëgg na ko waaw bëgg na jëkkëram jëkkëram bëgg na ko gis nga leen bi ñu merontee ñoom ñaar bi ñuy juboo juboo bu neex bu bu tegu ci yoon sax macha allah laf cet mareem rekk doyut bay des ah, ma ñëw ci ki nga xam ne mooy joor joor na bàyyi doomu jàmbur ji muy xor ñoo ñal xanaa joor ñaanul yàlla am doom dama xam ne moom bu ñamoon mat du xor ñoo doomu jàmbur bi amina na ko papaam delloo na ko delloo ji yaayam joor dina rey amina ah, ma ñëw sama xarit bi nag muy rakki rakki moom li ma ci xalaat mooy rakki dama yaakaar ne papa Jalika moom moo ko violé woon te loolu lépp combinu maire bi la ndax maire yaayu yaayu yaayu yaayu rakki moom mel na ne moom du yaay bu baax li taxoon ñu tëj papay rakki man gëm naa ne ci maire bi la jóge woon ñoom ñoo ko ñoom ñoo ko combine ba tey loolu lépp feeñ la moo tax àdduna moom booy def lu booy def rek defal defal lu baax ndax heure boo defee lu bon tamit résultat yi tamit nii dong la ma ne ko résultat yi nii dong la série bi moom dafa neex macha allah kenn ku ci nekk yaa ngi ciy gis sa bopp ah xel yaa ngi ci gën a ubbeeku kenn ku ci nekk tamit ñu ngi lay yee ngay moytu ci yu bari waaw ma kenn ku ne ñu ngi lay yee ngay moytu yu bari waaye ki nga xam ne daal mooy joor moom na dem na bàyyi doomu jàmbur ji tamit ñu delloo ji Amina nañ ko delloo yaayam doomu jigéen ndayam na ko na ko na ko delloo asalaamaaleykum maa ngi di siyaar bu baax a baax a baax di ngeen baalu àq aussi bu baax di ngeen wax ni gëj nañ déggante mais xëy na yitte yeex jamono bi xam nga aussi ñu amoon ay dog-dog yu ndaw yu ñu xaw na empêché ba tax na gëj nañ dugg mais ñu ngi doon seetaan tout temps di dëgg tout temps mais nag tey épisode quarante cinq toujours ñu am lu ñuy jàngat rek. kabra toujours rek ñu am lu ñuy jàngat si côté joor a côté rakki ah, ñaari yo jàngat yow parce que man bon je te dire que joor lan na bëgg si doomi jalika loolu daf ma jaaxal et puis joor mu ngi yàq mu ngi gën a yàq digganteem ak Jalika parce que tey kooku xale la dëgg nag su ko xulee da koy fàttali yaay ji et xam nga dese na ko ñemeñ bu baax mais nag mu doon moom je préfère mu jox mu wax ak biram ñu jox yaa booy bi yaayam mooy gën a si sinon dina ko blessé wala dina andi leneen loo xam te daf koy regretté suñu ñëwaatee si côté. Racky toujours rek waxoon naa fi ay épisode yu wees avant ma wax leen diw mooy papam kooku mooy papam mais nag tey dañuy ñëwaat di wax ni si beneen jàngat bu ñu def si épisode quarante et un euh, ñu wax ni Racky nëbb nañ ko dëgg ba fi mu toog nii jaaxle na xamul lan mooy dëgg mais ñun ci dëgg gi ni ñu ko mën a jàngatee ak suñu gis-gis ni ñu ko mën a comprendre mooy que sosal nañu paa bi taxal ko tëju ko noir boobu xamatu mu ñuul damay fàtte tur bi moom moo def lépp moom moo sosal papiraak yi taxal ko tëju ko ñu jëm ñu gëm a ne rakki papaam daf ko violé bi mu nekkee à l'âge de jeune mais man dama naan papaam violé ko paa bu ñuul boobu takk yaayu Jalika moom moo ko violé moom moo ko violé moom moo ko violé parce que moom moom man rek moom rek mën a jàngat ne moom moo violé Irak ñu ñëwaat si yaayu Jalika ma gis ne épisode quarante amoon naa si benn jàngat ma gis ne yaayu Jalika dafa fëkk paa moom ak. Euh, yaay Jalika ak yaay Biram ay copines ay copines keuse kom ñu Jalika ni mu mel ne ak Joor noonu la yaay Jalika amee ak yaay Biram ma gis ne ni tamit yaay Jalika lii daal Jalika moom daf ko defoon copine am mooy que yaayu Biram foogu ñu amaat beneen jàngat muy épisode quarante bi passé loolu tey mooy feeñ ci doomam moom wax na ko mais kan la ko def moo jaaxaloon nit ñi woowee peut-être ñenn ñi siy xalaat mais man dama gis ne yaay biram la ko def bu ñu jogee si loolu ba tey ma am jàngat bu ma jàngataat si épisode quarante ma gis ne épisode quarante paa bi takk yaay Jalika moom moo biram moom moo jur biram loogu beneen jàngat la donc ñu si bàyyi xel ne film bi dafa jaxasoo jaxasoo boo xam te ne soo dul suivre soo aussi soo dul déglu doo comprendre yu bari ba encore am na ay secret yu nekk si biir yoo xam te ne feeñagul carrément mais li ma jàngat mooy que biram paa bi takk yaay jaliga moo ko jur mo ñëwati ne paa bi takk yaay Jalika moom moo violé Racky mu ñëwaat si yaay Jalika ak yaay Biram ay dafa mel ni ne dafa mel ni joor ak Jalika ni ñu menoon noobu la yaay Jalika men ak yaay Biram donc li daal yaay Biram yaay Jalika moo ko teg tey joor mu ngi ñëw fayu histoire boobu donc mu nekk film bu doy waar bu jaxasoo mais dinañ gën a mën a waxtaan dinañ gën a mën a kii suñu seetaanee épisode quarante deux jëm quarante trois dinañ ci gën a mën a waxtaanaat incha allah ngeen baal ma àq jaay jëf Ibrahima Sarr. salaamaaleykum lu xew TV maa ngi leen dama bëggoon wax rek ci série bu neex bi ngeen di teg 2STV ñun dañu kontaan nañ ci bu baax ñu ngi koy seetaan di ko bége macha allah lenn rek lañ ci wax mooy français yi daal bu ngeen ko mënoon a wàññi dina baax trop parce que série bi dafa am solo ñi koy seetaan bari na te ñu ci bari dégguñu français bi et seetlu nañu épisode yu mujj yi série bi dafa gàtt tamit waaw dafa gàtt bu ngeen ñu ko mënoon defal comme ni meloon daal. dina am solo trop mais kontaan nañ bu baax Marème maa ngi lay bégee di nuyu di kontaan ci yow di la wax ñaareel bu jóge macha allah <laughs> bégee nañ la série bi am na solo lu baax a baax a baax am na solo lool di wax nag rakki na muñ rakki moom wax vraiment ku jàmbaare la na muñ rek vraiment xam nga yaayam boobu moom moom moo jaxase carte gi waaye incha allah lépp dina leer rakki mu ñer rek yaa ngi ci yoon yi bu ko teggi fi nga teg sa tànk foofu la ñu ngi leen di bége bu baax Jalika sama fans bi macha allah ñu ngi leen di bége kontaan nañu bu baax a baax ci yéen série bi neex na lool am na solo waaw ñun ñi ngi fii depuis Italie di ko seetaan mais am na solo trop lenn rek lañ ci kii mooy français yi daal bu ngeen ko mënoon a wàññi dina baax lool lool sax waaw kon jërë ngeen jëf ñu ngi leen di bége bu baax a baax. waaw sama mbokk li ma bokk groupe bi waa matériel Sénégal yi maa ngi leen di leen màggal jox seen wàccuwaay di kontaan nag ci seen quarante ans bi am na solo yëpp lool jàngat yu bari na waaye damay digal Lalla ne ko de jarul xare jarul xeex ndax nag suñu yaay booy jooju mu wàllam wéy na moom la bëgg a dugal ci xeexu wujje bu ko nangu bañal ba tëdd suuf dawal ba ngay amee tànk mareem sa rakk la te dañ na wujje bokk wërsëg la te yow sa sa borom kër dëggal na ne daf la bëgg wax na ko bu na mu ngi koy wax mareem wax dëgg yàlla am kon bañu la xaw ma nag lan moo waral loolu te wujje moom du geer du xeex du tam nit koo xamante du mën lañ koy doy mbala dafay am luy manqué si moom ndànka rek waaye nag biram ma wax si sama càmmiñ biram biram daj nga de ci sa maam di wax ne boo bañee boo bañee koo xamante ne niñ koy waxee ci wolof rek ñu di wax yi waaye li nga am de jagul ndax sa doom bi nu mën a mën a gàncax ba mu génn rek génne ko sax mooy sa ngëneel sinon dana ko def dara loolu laa am si lu ma lay wax di leen nag bu baax di kontaan ci yéen Serifone man daa gisuma ci sikk maîtresse d'un homme daal suñu série la kontaan nañ si bu baax baax baax di leen ñaanal yokku ba yokku rek ndax yéen a ñuy yeddu ñu delloo suñu conscience tranquille merci beaucoup. bon asalaamaaleykum euh, sëñ bi ni ngeen def. yéen a ngi ci jaamu théâtre bi seetaan naa ko tey jàngat ñaari jàngat daal laa ci am ci diggante Marème Marème ak jabaru Biram bi eh, Marème comme Marème ni ma ko gisee jigéen ju baax la jigéen ju ju ju ju mën a ju muñ la mooy ki nga xam ne yàgg-yàgg seen kër gi dana dem ba boole ñëpp kër gi ñu ko mas a mere ñëpp daañ dem ba juboo ñoom mu def kër gi genn dana dem ba mu yàgg mu def leen ñoom ñëpp ñoom ñëpp ku ci meroon danga bàyyi sa mer ànd ak moom moom laa gis yàgg-yàgg dañuy ànd kër gi day nekk benn waaw dañuy àndoo nekk benn famille ci booba loolu Marème moo koy liggéey nit la boo xam ne bi jàppul dara ci xolam nit ku ndaw su baax la Eh, jabaru biram bi eh, kooku yàgg-yàgg day tas ndax di sëy ci bëggoon sa doomu jëkkër kooku xam nga ne moom boobu sëy jëmul fenn waaw jëmul fenn ndaw si baaxut bëggul doomu biram bi ci feer bu ne feer bu ne ci moom moo ko ci a kon nag di ko gëmloo nekkul mu di ko gëmloo lu bot bu biram ñëwee mu gëmloo ko ne di ko bëgg bëggloo yooyu loolu du loolu du dëgg du sëy moo tax yàgg-yàgg ñoom ñoom dañuy tas ñoom dañuy tas biram da koy wàcc kooku laa gis ci ñoom ok merci loolu nag laa gis ci ñoom ok maa ngi suivre toujours seen seen théâtre bi rek ah, waaye ba tey Sénégal ñoom théâtre joxuñu ko seen àq waaw dañ leen waroon jox seen àq bu baax a baax waaw ok merci merci jërëjëf. bon asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di leen jaajëfal bu baax a baax di wax ci série bi daw tey jii série 41 bi euh, joor joor ni muy doxale du noonu ndaxte te foor na sóoraale ni moo jarika mos nañ bu dee benn fan la sax ñoom ñaar sekk nañ ko teraanga. kon wuuta doxale nii ba euh, di totiré xale bi di ko kii moo tax sëy moom boo ca amee doom rek góor góorgóorlu nga ñafe nga toog boo mënta toog tamit booy dem yóbbaale sa doom ndax doom moom bët bi koy ndey di xool keneen mënu ko koo xool nday rek moo am yërmande ci doom ok jërëjëf maa ngi leen jaajëfal bu baax. waaw maaleykum wàllu xew TV nuyu naa leen yéen ñëpp ma fekk ci buntu bi cat ba cat nuyu naa ñëpp. waaw maa ngi bëgg a wax ci euh, série maîtresse d'un homme marié bi seetaan nañ ko neex na trop neex na trop mais tey moom seulement man moom ci joor laay wax am naa lu ma metti trop trop trop nu muy traité Amina te xam ne Amina xale la xamul dara waaw doom bu jigéen moom yaayam rek moo ko yor biram dafa war a delloo xale bi yaayam sinon moom da ciy juddu ëllëg du neex ndax joor moom xol bi dafa wow rafetlu ma dara ni muy doxalee dara dara dara bépp yaay bu ko seetaan tey daal sa xol bi neexul waa biram na delloo xale bi loolu mooy dëgg su ko namee mu dem seeti ko doom ci jigéen moom yaayam rek moo koy yor waaye lii moom rafetlu ko dara dara dara dara dara dara tey moom sama xol moom neexul. salaamaaleykum sama gars yi ñëw si seen épisode 41 bi seen kii ñoo ci Marème Ndiaye ak Cheikh Marème Ndiaye moom warta fiir fiir daam kee moo fiiroon kee laal la mais moom warta fiir moom na bàyyi rek na dégg waxi waxi Cheikh na dégg waxi Cheikh yi daal nu mu ko wax mooy lool ak kii kan sax ah joor mu ñëw si joor ak xale joor moom temps moom li muy def xale bi nii temps ne métti na mayut ko jàmm mayut ko salaam wane mu jaaree ko fa mais xale bi bam ko bam na ko dama xiif waroon na ko jox sa lekk bàyyi ko noonu waaye mu bàyyi ko noon mais xale bi dafa yaakaar na mooy loolu man tooxa waaye bu yàggee dana wax lépp lépp lépp dana ko wax lépp papaam dafa yaakaar ne xale bi daal mooy lool waaye xale bi moom moo ko gën a muus sax gisoo boo seetloo bët yi mu koy xool noonu <laughs> salaamaaleykum salaamaaleykum ci li ngeen ne bàyyi nañ ci jaam bu baax maa leen di ziar yéen wax dëgg yàlla lii moom dafa neex trop am lu la neex ci sëri ba lu la metti ci sëri nga daal koy wax loolu wax dëgg yàlla dafa neex neex na lii moom dañ koy yéex a def ah tey moom wax dëgg yàlla joor ah lii xarit la yow yaa ngi am sa xarit mu divorcé ak jëkkëram xooloo loolu yépp nga dem sey ak jëkkëram ñu ne deetewaay doomam bi mu fa bàyyi nga di ko def lu ne kii bu xale bi dee seen loxo moom ndax moom dina nekkati ci àddina ah dangay xool lu rafet nga di ko def na xool moom su doon moom ndax ñu def ko doomam ba xam dina ko neex nit ki bul joteeg yaayam rek ngay venger wu ci doom ci rafetul te kii innocent la xamul dara joor am na lu mu doon xale bi tey eh, kii lu mu jàppoon da jalika lu mu jàppoon da koy bàyyi mais xoolal tey ni xale bi ah yii tey moom moo metti asalaamaaleykum wàllu xew TV nuyu naa leen di leen ziare di nuyu képp ku seetaan na presse maa lay nuyu bu baax di leen nuy yéen ñëpp di wax ne kontaan nañ ci série bu baax a baax kontaan nañ ci trop euh, di wax ne Racky na def attention na def ndànk ndànk ndax nit du gaaw mun na am fi mu fogee mun na fay bañ a nekkee na def ndànk ndànk ndax booy seet doo yàkkamti te moom da cee am tuuti rek waaye de amu ci lu bari lu ko leer daal def ndànk-ndànk te xam ne wayjur moom nu mënta mel wayjur la même bu doon moom la violé sax wayjur la mu def attention ndànk-ndànk di wane may rem nañu dimbali moom tam nag bàyyi yi muy sol yi rafetu trop rayfa rafetul ndax des fois nga toog ak say parents des fois nga toog ak say doom des fois nga toog ak say rakk di ko seetaan yi daa rafetul moom daal wàññi woon na temps yi daal waaye na gën a wàññi na gën a bàyyi daal yu sexe yi muy def nii na ko gën a bàyyi lii daal moom daal mooy tax série bi nit ñi di ci wax dara lii rek la bu dee bës la tam nii duñ ko wutee bës ndax na xalaat na ëllëg war naa am ay doom te lii rafetul dara rafetul dara dara dara dara wax dëgg yàlla ñun daal kontaan nañ ci série bi waaye temps yi genre mel nii daal moo ñu tax a tayal loo daal ci série bi dëgg yàlla di wax ne biram moom lum nar man damaa comprendre biram lan la nar moom dafa nar euh, or yaayam wala man daal comprendre ma biram daal lum nar góor du seytaane góor du jaxase góor day màndu nit doomu aadama njaay si dafa war a màndu surtout góor cër buñ lay jox yëpp ci loolu lañ la koy joxee góor kenn waru laa xamee jaxase kenn waru laa xamee ñàkk fayda baaxul ci jigéen sax waxantuma laa góor biram yow moom moom biram yow moom maa yow bu ñu tisee woon moom faag ñu raak mënuñoo ñàkk a raak <laughs> kontaan nañ ci waa série bi yëpp. asalaamaaleykum yéen groupe maîtresse waaw ñoo ngi kontaan sant yàlla vraiment neex na lool neex na lool lool lool waaye man daal leen rek moom ma ci métti moom man daal jor laa comprendre daal quest wër na yàlla ni muy def xale bi man daal ni muy def xale bi moo ma metti lool lool lool lool te dafa am sax wër na yàlla lii muy jeunes yi am na de am na ci kër yi de wër na yàlla lool man daal moom rek moo ma muy def xale bi parce que on daal xam man man ngaa géej waaye xam kuy weri fi neen mën naa dem ba xale xale bi jariñ ko jëriñ ko ci lu bëree bëree bëree bëri bëri waaw koy def daal moom moom rek metti waaye nag xale bi na muñ man loolu laa koy digal na muñ waaw jërë ngeen jëf merci. salaamaaleykum na ngeen def ça va a ngi ci jàmm ça va bien alhamdulilah ça va waaw série bi laa bëgg a participer ah man nag awala awala <laughs> waaye nag ah ñaareel bi moom macha allah dafa jógee de ah, ñaareel bi neexut a neexut a de. Marème Marème dafa jëngee macha la ba pare du mer loolu ma gën a neex ci moom da ngay mer buy bëgg dee muy semblant waaye nag a ah, bii yoon moom li def euh, li mu wax Cheikh Diagne moom ah Cheikh Diagne war moytu de xam ne laala dafa nooyoon waaye kii dafa dëgër këj te waxu ko sax nag waxu fa kafu ca réewu ca waaw la Cheikh Diagne nag na moytu na moytu ah na moytu ñaareel yi. <laughs> na moytu bu baax a baax loolu laa kay conseil te mu bàyyi doxaan moom dafa yaakaar ne àddina jigéen rek la du noonu du noonu am nga sa ñaari jabar après dangay toog nga réglé ah nga nga jàpp sa jabar daal jàppale leen ba pare nga yemale leen waa man daal comme xas na ba sëy si na leen yemale rek waa mu jubal ko rek bu boobaa kër gi day neex <laughs> aywa nekk leen ci jàmm merci. salaamaaleykum waa Lu Xew TV maa leen di Ah, di leen wax ni nag seen épisode démb bi moom neex na torop torop torop torop moom neex na macha allah Marème moom mu ngi fiy toj man Marème moo may faj waaye nag na bàyyi xuloo bi Marème na bàyyi xuloo bi di fexe comprendre jëkkëram di waxtaan ak Cheikh da xam ni moom Cheikh da ko bëgg Cheikh dafa bëgg Marème Marème nañu ci rus ñun ñi di seetaan man Marème daanaka mooy tax su ma su ma kii bi rëccee sax damay dem ci YouTube bi seetaani ko foofu ndax bëgguma benn yoon mu rëcc ma ah nay góorgóorlu waaye te bàyyi xuloo bi te joor li muy def moom tam mu seet yàlla bu dul dara sax mu xool digganteem ak Jalika li muy def xale bi dara baax ci te xale du fàtte xale day téye na ci rafet li muy def moom vraiment rafetul dara rafetut na seetaat yàlla ci li muy def. salaam salaam sabaa si la tey moom maîtresse épisode démb bi laay laay wax si biram ak soxnaam boobu mu takk soxnaam soosu moom mu takk amul droit du ko takk parce que soxnaam soosu baaxu guddi baaxu bëgg te kooku moom du jeegu kër de jàpp doomu jàmm di ko toroxal mel ko yor mbaam heureusement bu ko may sens ba xale bi mënul wax kooku moom waru kaa takk moom wax fa ne yàlla biram tamit muusul biram wala taw dëgg la meer bi nag moom mi ngi nii tasloo kële fexe na ba awa ba dem indil leen kenn xamul bu mu doon jàpp di ko toroxal te kooku baaxu wala baaxu bu la maa biram ma dama koy fasamal kooku moom doy na sëkk baaxul de te dem toppatoo moom moom lu mu war a lijjanti moom doy na ko jëkkëram njee ñi ko may mu siisu ba ñëw toog fii kooku la war dem lijjanti mais du pas du kii waa asalaamaaleykum waa wuri bi ni ngeen def yéen a ngi si jàmm di commentaire ci seeri bi di wax na série bi am na change macha allah mare moom dama ko bëgg waa aw waaye bëgg naa ko trop dafa bëri ay feem te ñun liggéey ñu war noonu bàyyi xel ci moom dëgg la waaye yenn saa yi nag mu def ay erreur ndax sa sa jëkkër guddee wàcc na yaakaar mi ngi doxaan waaye nit ki tamit ni ko amee da yaakaar ne même bu su demee rek bu guddee wàcc mi ngi doxaan te fekk na doxaanu sax waaw te te góor moom doo gëstu léppam ndaxte boo xoolee da ngay gis boo déglu da ngay dégg li la war sa diggante sa borom kër rek danga koy def daal man loolu laa gis di wax na Jalika nag moom man pour man damay dem dafa woon a yóbbu doomam ndax xëy na biram moo nangu mu bàyyi mu yóbbu ay mu yóbbu doomam te xaritam tey mi ngi nekk ci kër gi di maltraité ay doomam ndax dëgg yàlla man loolu moo lu ma sof la xarit boobu daal dese naa dëggu ndax li biram lu mu lu mu bëgg bëgg bëgg bëgg waroon naa xool diggante moom ak Jalika ak fi ñu jaar yëpp nekk ay xarit yu sincère ma daal lim def rafetlu ma ko dara dara dara dara ndax xarit moom dana dem ba dana toll instant boo xam ne moom dangay jàpp rek jàpp xarit gi waaye doo xool góor mi dox seen diggante di seen diggante. waaw merci série bi moom macha allah bu leen gëstu commenté Sénégal moom dañoo mën a commentaire waaye série bi moom macha allah ndax li ñu li ngeen di les yi ñuy joué yëpp moom la nit ñuy dund même ko dund da ngay gis ku ko dund kon tamit am na sens daal man mu bëgg naa ko torop. waaw torop. dëgg yàlla am neex na torop yéen a ngi ñuy yéeg ci bépp côté waaw neex na torop ñu ngi leen di sant di leen ñaanal fi ngeen bëgg a yegg yàlla na ngeen fa yegg wa sallam waaw man rakki rek ci bëgg a commencé nag rakki daal su doon maay moom la ma def attention waaw ndax liñ koy waxal ci papa ji daal yaakaar naa du dëgg moom papa ji moom yaakaaruma ni moo ko violé moom man sama xalaat bu gàtt moom yaakaaruma ni paa bi moo ko violé kon nag su doon moom ma def tànk ndax mère bi moom danger la def danger la def li mu def yëpp moom garaaw la def moom juru rakki yaayu rakki lay war a jur mais warul mën a jur rakki doom kenn du jur di ko def loo nii moom bëggul daray rakki xaalis rek lay lijjanti ci rakki waaw lu mu ko jox mu ni ko doyut moom bu ko rakki toppoon ba léegi waxatuñ ko kon rakki moo ngi ci hôtel yi baar yi di taxawaalu meer bi baaxut waaw baaxut baakari moom li koy xaar moom xamagu ko sax baakari moom li muy def lépp yéem na ma moom xam na secret bi yépp ba pare ñëwaat jaaraat ci suuf bëgg a doxaanaat rakki est-ce sax du moom moo tëddee rakki sax baakari moom baakari saañaa moom est-ce que ndax paa bi nee lépp dinaa ko wax xale mu ne ko soo ko waxee la am na lu ci nekk moom na lum ci def moom moom am na lum def waaw baakari def ay jabaram jooju tamit yi fi daal luus na balaa ma gëm ne jabaram jooju eh, kii yut pap liyut yaay rek yéeme na daal affaire bi daal jaxasoo na torop waaye Bakary moom baaxul bon la meer bi bon na waaye Bakary tamit bon na bon na capable na ndax moom nu mu mën a xamee secret bi yëpp ak bon bon yi muy def yëpp te xolo bi mu dikkisee bi dafa mel ni ku ko xamul tur bi sax buy wax ak ràcc ko nangoo xam hmm. kooku noonu la koy wax sax kooku noonu dikkoon na fi waaw loolu lay wax ràcc buy wax ak moom nanguwu ta xam dara moom nekk xam na lépp liy daw si gaale bi xam na ko waaw yéeme na daal maire bi daal moom danger la danger la lool sax mais rakk moom na def attention bu baax waaye ci digganteem ak papaam su may tu rek erreur dina ko ci dal ndax liñ ko wax ci paa bi daal yaakaaruma ne moo ci nekk yaakaar yaakaaruma ne moo ci nekk yaakaaruma ko de waaw même même man kii biram biram ba tey mook Cheikh Diagne yaakaaruma ne ñoo bokk papa biram yaakaaruma ko sama xel bu gàtt yaakaaruma ne ñoo bokk papa ndax biram li muy def lépp bokku da seex jaañ nu ñu dund sax bokkuñu sax xaaju ñu bay bokk du ci dara yaakaaruma ni daal ñoo bokk papa yaay moom mën nañ koo bokk mais papa ah mën naa am mais yaakaaruma ko de yaakaaruma ne ñooy bokk papa moom biram ak seex jaañ yaakaaruma ne ñoo bokk papa waaw damay yaakaar ni meer boobu kooku mu doon tudd kooku mu doon tudd noonu naan ko lim ñu def li ñu kee def papay Jalika lim ma def ak diw diw moom laa yaakaar ne moo jur biram bàyyee ko meer bi mais meer bi moom yaakaaruma ne moo jur biram réellement Pape Cheikh Diagne moom yaakaaruma ne moo jur biram ñoo bokk ndey ak baay non yaakaaruma ko waaw sér bi neex na torop nag am na solo dëgg yàlla meen saa yi ngeen dugg ci kaa boo xamante ni daal ngeen ko fekk ci kër ñu waxtaan ci jéem ci wut solution ba sonn duñ ko ci am yéen a ngi ciy gindi bu baax nag am na solo kontaan nañ beneen bi tamit maa ngi ci mareem mareem waaw mareem tamit na yokk ay point waaw moo gën li muy def Cheikh tey indi na jàmm moom tey moom indi na jàmm indi na juboo loolu la war a def neexal seex teg ko ci wetam waaw mais ñàkkante moom bu ko dugalee digganteem a Cheikh rek day ñàkk ndax Cheikh bu taxawee rek comme ni defoon fippuwaat comme ni defoon du am dara day day ñàkk ndax noonu la ko def ni ma def ba indi la fi laay def ba indi fi rek la koy wax boobaa mu ñàkk nag dara lu mu topp topp cheikh day dëpp góor moom kenn mënu koo topp ba topp ko jusqu'au bout mënta nekk lum ko topp topp day dëpp waaw loolu daal am moom laa amoon ci lu koy wax waaw